asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu sénégalais yëpp ku ci nekk di la ñaanal jàmm ak salaam di wax ne yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi di wax ne toujours rek mooy li may wax duma ci jóge te kenn duma ci mos a jële ndax ki ma ciy jële kenn la muy yàlla naa moom rek moomu ci mën a jële ndax duma dara ma dara maa gën a yées ci dëkk bi maa ci gën a nekk ki gën a torox ci doomu aadama yi nekk fii yëpp ci biir dëkk bi waaye damaa am lu ma yàlla di di may rek loo xamante ni xeebuma ko te xam naa ne tamit xaw ma lu ma def ba yàlla defal ma loolu mais damay wax léeg-léeg ci internet bi nit ñi dañuy jàpp ni waa ji dafa bëgg rek wax moo tax muy wax waaye Sénégal yàlla def na fi dima ciy dellusiwaat siwaat ne leen Sénégal am na lu fi nekk loo xamante ni mooy lijjantil boppam lépp loolu ay mag fi nekk fi mag ma tax te xamuñu ko Euh, yàlla nag mooy xool ci am pénc mu jël ku ko neex jox ko loo xamante jox ko kenn ba pare xañ ko loo xamante ni nit ñaa ngi koy am léegi day de mel ni ku jël lu baax la def ko ci biir mbalit ba la ca biir mbalit ba ndeke mooy lu baax li waaye nit ku am seetlu yàlla may la tuuti moom mooy mën a xam euh, li nga xamante moom la yàlla def waaw ndax nit su jokkuwul ci yàlla du am tolluwaay ci àdduna jokk ci yàlla nag day day day day joxe tolluwaay tolluwaay du da ngay jàng alxuraan du da julli lu bari da ngay noone déedéet tolluwaay dafa am dafa am imaan boo xam ne mooy nekk ci yow boo xamante ni maanaam eh, sa ruu lu mu am am am am bànneex bu nit teg sa kanam day am yow noo ciy mel ba dooñ la ci gis di la xeet wala ñu lay yàpp wala mooy am loo xamante ni tey jii dañ la koy joxoñ muy ay baaraamu tuuma may leeral ni Macky Sall amul conseil mystique jamono yuñ toll nii Macky Sall amul conseil mystique ah, ndax damaa xam ni am réew boo ci nekkee nekk koo xamante ni dañ laa fal nga nekk ab njiit daa am taxawaay yu bari yoo xamante ni danga ko war a taxawee danga am war a am sax xaritu dof yàlla na ma yàlla jégal ci wax ji am xaritu gumba am xaritu lafañ am xaritu ku tekkiwul dara am xaritu koo xam ne ku ko gis sax xeeb ko wala bañ ko yàlla noonu lay yëkkatee ay garaat moo taxit lu bari du la bett euh, jamono yuñ toll nii séeréer yi kontaanuñ ma wax leen ko man séeréer la jamono yi ñu toll nii séeréer yi kontaanuñu te séeréer yi ma wax la balaa ñoo mën a xeex nawet jub si wala ñu nawet ba noppi loolu moom dam leen ngeen laaj képp kuy séeréer mu leeralal leen séeréer yi dañoo mer te balaa moo mën a xeex nawet jub si wala nawet di jeex donc li may leeral mooy Macky Sall dem na ci dëkk boo xamante ni xëy na xamul dëkk ba bu baax politique mën na ko faa yóbbu mu dugg génn tey Macky Sall waroon nañ ko mën a nettalil wal joojo njaay bi mu wàccee liggéey biñ koy yóbbu kawlak waroon nañ ko mën a nettal Macky Sall mu xaw a bàyyi tuuti xel ak séeréer si ndax tey ngeeñeen boobu noonu ngay gis noonu amul benn dëkk bu ko ëpp doole mystique ci Sénégal ngeeñeen man xam naa ci lu bare bare bare bare bare bare bare ngeeñeen du dëkk bu ndaw ci mystique ci Sénégal te ku weddi nga laaj ñi Ousmane tanoor Dieng doon nekkal ak doon waxtaanal doon jëflante ak ñoom ak fi tanoor jóge ngeen di ko xam ba mu yegsi fii ngeen yegsi mosu leen koo dégg ci ay lënc-lënc yu koy jax jaaxal wala yu koy jaxase te fu ngeen ko fekk dana ànd ak dalam du ngeen dégg ragal na du xof loolu moo leen waroon a yee bu baax waaye bàyyiwu leen ci xel Macky Sall amul conseil mystique benn ñaareel ba waroon na mën a déglu ci ay histoire yu ñuy wax ci senegaal lu ci mel ni kero bi Valdiodio Ndiaye làqoo ñu war koo dem denc bañ ko waree denc ba ñu yegsee ba siin koro bi ne du tàkk ndeke booba am na mag moo xam ne jóge na ci yoonu tool di ñëw tolloo waa état yépp ñu ngi taxaw ndax koro baa ngi taxaw mënula dem mag ma na leen kan moo làqu nii tey ngeen ñëw fi bëgg a taal oto bi mënu leen koo taal ñu ne ko wal joojo njaay moo wàcc liggéey tey mu ne leen tey asamaan sax ñi ma mag ñoo ngi fii bi wal joojo wàccee liggéey gis ngeen asamaan si jëmmam ji nu mu meloon mu ngi meloon ni keroog bi Macky sàll ñuy wax di lire élection euh, résultat élection présidentielle yi Sénégal lu leen naqari asamaan si jooy ko de leen bàyyi seetlu maam Abdou bi mu wàccee liggéey asamaan si naqarlu na ko gis ngeen ko Serigne Saliou ak keneen ak keneen koo xamante rek suñ borom def na ay ngëneel te mu nekk ci xilaafa gi wala mu nekk ci loo xam ni cosaan ak adala la te yàllaa ko fal foofu keroog wal joojo njaay bi mu wàccee liggéey koro bi yaar bi taxaw góor ga ñëw ne kan ma wàcc liggéey ñu ne ko wal joojo njaay mu ne la asamaan si feeñal na ko waaye fi ngeen toll nii mënu leen a romb di fi bàyyi jigéenam ji ñuy wax yande koddu mooy Yandé koddu bi ngeen di dégg Youssou Ndour di ko woy Yandé Codou te Youssou Ndour moom moo taxawu Yandé koddu ci lu bare Youssou Ndour bu leen ko xeeb ci lenn dara la ci biir dëkk bi jàpp leen ko ma waxaat leen ko dara la ci biir dëkk bii lu mu boolewul loxoom du dem jàpp leen loolu du ay naxen du ay bëgg lu ko neex wala bëgg lu leen leen naxari wala wax wax ju ëpp yàlla mooy jagleel nit loolu keroog Yandé Codou dafa génn am na woy bu mu doon woyal wal joojo keroog la ko woyal woy boobu dellu si ne ko nag ah mënuma laa téy danaa la bàyyi nga dem ca taal korobi bi korobiyaar bi tàkk te li may wax am na ay mag yu fi ne bu ko kenn génnee weddi ma xam ne daa bëgg ko neex waaye fii li may wax munu kenn munu koo dindi Yandé Codou ca ko woy yuuxu korobi bi continuer ñu dem denc ko tey nag damay leeral ne Macky Sall na bàyyi xel séeréer si kontaanuñu ci moom kontaanuñu ci moom de kontaanuñu ci moom de te loolu na jóg dox ko na jóg lijjanti ko am na ay wóllëreem ci séeréer yi na leen delluwaat seeti maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp partager leen vidéo bi Sénégal moo ma ñor te Sénégal dafa am lu ma fi yàlla def ku ma ko xeebee man xeebuma ko ndax yàllaa ma ko may ku ma ko jàppee ma jàpp la te xam ne yàllaa ñu ko defal yàlla ñu yàlla defal jàmm ñëpp am jàmm ñëpp di dox jàmm ñëpp di wax jàmm yàlla na ñu yàlla sàmm suturaal ñu jaa jëf.